ku nekk war naa góorgóorlu ci luy yokk xelam luñ la wax boo ko defee sa xel mi yokku rek sonn ca luñ la wax boo ko defee sa xel mi wàññeeku ba ko bokk na ci lii rey xel nelaw yu bëri ku dégg bëccëg nelaw sa xel day mujj saturé dootul amati benn lumière bu muy mën a def ba gis bokk na ci lii rey xel mooy yàlla gu bari boo fi nekkee di mooy yàlla di dundee alal ju lewut yaa ngi mooy yàlla tëddee dee jigéen yoo takkut yaa ngi mooy yàlla doo wax dëgg yaa ngi mooy yàlla di jëw yaa ngi mooy yàlla di xaste di rambaaj di gaaral loolu lépp day dem ba nekk lëndëm lëndëm guy mujj di fatt turu yi nga xam ne moom la sa xol bi amoon di ay lumière yi daan doxee di mën a gis ceeneer ya euh, ñaareel bi tamit jëfandikoo aw ñollu muy naan sàngara wala dorogewu yooyu yëpp dafay dafay rey xel jëfandikoo cigarette tamit noona day rey xel da koy wàññi moo tax Omar ibnu Xataab ku reyoon xel la daana wax ne man de sàngara bu xaraamutoon tamit ma ba ndax sama xel mi damaa bëggoon lu koy yokku comme yëg naa ne sàngara da koy wàññi man damay dem wuti lu yokk sama xel bàyyi bi di koy wàññi kon xeet yooyu yëpp ci xeet yi mooy yàlla yi day rey xel moo tax tey nit ñu bëri ñu ngi fi mais seen xel yi néetu fi bala nga koo xam nga yore oto nekk ci tali bi nit ñi ñoo daan daw oto yi waaye léegi ñiy dawal oto yi ñooy daw nit ñi nit ki dana ñëw koo benn vogue maanam jël casque ya dugal ca nopp ya ma ngay déglu nekkatu fa léeg-léeg nga seen ko ma ngay caddi caddi wala muy yaanu te kenn cojjalut ko wala nga dóor ko kooka mën ngaa ñëw ba dal ci kawam te du ko yëg man gis naa ci koo xam ne noona la def takk vogue maanam ba mujj traversé raay bi autoraay bi mujj jël tànk yi te yëgu ko bala doxee ñàkk tànk te loola ñuy dawal buñ ci àndinul seen sago ba bu ci accident lañuy dëkk dox ci kaw tali bi nga foog ne nit la fekk maanaam jëmu jaafa nit waaye xel ma ni hëtu fa su boobaa yaa koy moytu kon ba jamono yàqoogut nit ñi ñoo daan daw oto yi waaye léegi nag oto yi ñooy daw nit ñi ndax safaan bala ndax nga daan daw oto yi ñooy mujj dawal oto yi nga daan daw oto yi nag bu ñuy dawal oto yi kon tamit ña maanaam doon mooy daw oto yi dañuy mujj tamit oto yi di leen daw foofu la àdduna tollu su ko defee kon nag xel am na solo jar naa bàyyi xel li koy yokk fexe ba sa xol bi sa xel mi yow doomu jullit bi turo yàlla njëkk ci da ci turo yàlla njëkk lu cay tegu tegoot ci waaye judd rek tollu ci wàllu jàng ñi jàngaloo la alquran dana ubbi sa xel waaye bul ko def ngir ubbi xel jàllale bi ko wan fa alquran ja gannaaw jublu sa jàngi leneen looy looy booy ca def jël première kon loola nga cay am waaye jublu ca ne jàng alquran yàllaa ko santaane soo ko defee mu ubbi sa xel defar sa àdduna defar sa àllaaxira kon bokk na ci li gën a gaaw ci luy ubbi xel. xale bi toll ci jàng rek nga jiital alquran ca xelam ma mu jiitu ca su ko defee nag mu continuer di def ay cours ñu ko fay fekk di ko jàngal bu demee vacance bi jot nga yóbbu ko ci daara internat yi wala nga wutal ko oustaz mu koy fekk ci di ko jàngal ni ko suñ doomi ndar yi doonee ba tax na tey boo doon seen réew mi doomu ndar yi ñoo ci ëpp cadre ndax koo fi gis tamit cadre bi mu am ci diplôme ci wàllu àdduna boo ko maanaam am na ko tamit ñaareel ci wàllu diine ci xam alquran ki jàng sunna su ko defee kon nag xel moom jàng luy jariñ moo koy jariñ fexe ba jiital ci alquran jiital ci waxi yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonantu bi mu demee am ñeent fukki yàlla bëgg xelam mi ëpp xel yépp dafa ne ko ci sa xel mi jàng sa turu borom iqra bismi rabbika kon ci ngay déggee ne ismu ismu rabbika la ñuy jiital ci ismu xayri rabika ku bëgg sa xel ubbeeku na ci sa turu borom jiitu lu dul sa turu borom te lépp looy jàng tamit lu mën a doon jiital ci sa turu borom soo ko defee rek lépp baax su ko defee kon xel a ngoog xel a koy yokku ñaareel bi tamit bokk na ci luy yokku xel di diisoo dañ koo ëppalante leen nu ne ba sal bala nga caa dugg seet ña la ca jiitu ëpp la ca xel laal nga waxtaan ca ñoom te dox ca dox leen sa nopp da ngaa bëgg soxna ci waxin bul seet ci nga bëgg seetal ña la jiitu woon ci soxna njëkk laa nekk jëkkër nga laaj leen ko bëgg a dugg soxna nu muy def naka noonu tamit boo nekkee jigéen war a dugg ci néegam say seetal ña la jiitu woon njëkk nekk jabaar ñooñu buñ la ci dugalee say waajur doo xam problème moo tax damay wax ne bàyyi mi njëkk a nekk jëkkër moo gën a xam ki mat jëkkër yaay mi njëkk a nekk soxna di jabar moo gën a xam ki mat jabar kon kum la tànnal yow doom ji doo du dugg doyloo ko ndax nit du la jur di la bañ ku la jur màggal la sa warul njàng mu sonn ca di fay di la teete ba nga ñëpp bëgg la ba la bëggagul moom kenn moo la bëgg kooka dëgg dëgg boo goree kum la bëgg loo jàpp ca danga cay am ndam tax ba jamono yàqoogut nit day toog rek woo doomam yëg naa ne war ngaa denc soxna demal seeti sa kër nangam mu dem yi lii de doy na ma ca bu ñëwee rek ndam rek la cay am kii tamit day toog ne këb jigéen yem ci loxol yaayam ba nit ñëw bëgg ko fekk ko foofa yaay yaa bàyyi ya dugal ko ca mu dugg ca rek am ndam waaye léegi na yow da ngay bëggee ci mbedd mi rek da jéeg nit léeg-léeg sax am na ñoo xam ne ñoo gën a perdi da ngay gis ci photo bëgg ko ñeen ñi far da ngay jokkoo nit ki ci ordinateur yi ñenn ñi dangeen di far dugg ci site yi fenn fa na nga gis fa duggante fa ak seen téléphone yooyu seen waxin ya nga jaaree ca ba bëgg ko te mën naa am mosu leen a gisante ci jëmm loolu lépp problème lay indi te danaa ki ñëw ci wàllu sëy yooyu kon nañu sonnee xel xel lu am solo la ku la ko ëppale tas caaxaaneewut xelam kooka mooy ki la gën a jagle àdduna mooy ki la gën a jagle àllaaxira kon doomu aadama yàlla gënal na ko ci xel ñaareel bi gënal na ko ci xam-xam xam-xam buy mën a wàlle ñi man koo wax man koo bind man koo jàngale ci par ay siècle bu ñëw baneen ñëwaat muy gën di bees di gën di yokk loola nit la ko yàlla jagleel moo tax gis nga bi mu sampee nit ñi ñoom ci tànnoon ñuy tànnee fu nit ñi mu def leen seen xel yi ëpp ci xel yi seen xam-xam ëpp ci xam-xam yi mu jox leen ñu def lañu ay professeur di jàngale moo tax bu la yàlla joxee sa xel baax mu doxal sa xam-xam mu gunge ko demal nga njukkalee yàlla nag li nga xam nga dem xam la ji ko loolu njariñ lu rëy rëy la boo xasee xam-xam le rek mooy sa farata aadama bi mu xamee tur ya yàlla wax ko ne ko demal tëddi nelaw dafa ne ko santal yàlla ci li nga xam nga xamal ko malaaka yi yaa aadamu am bi hum bi asmaayim fekk la ko mooy wa allama aadama al asmaa comme nag xamal naa la tur yi li ci des mooy demal nga xam la ji li nga xam kon nit ki saa yu xamee te xam ne xam na li ko war mooy mu dem xam la ji nit ñi ñeenti xaaj lañ kii xam te xam ne xam na kooku li ko war mooy xamle kii xam te xamul ne xam na dañ koo war a yee ne ko xam nga gannaaw bu xeewoo nag mu door a dem xam la ji lim xam waaye comme du ko mën a xam ne te fekk dañ ko yee ñaareel bi am koo xam ne nag dafa réer te xam na ne moom dafa réer kooku la ñu tuddee jëflul basiit ci ulamaa usul réer nga te nangu na ne dafa réer keroog ba nga réeree nangu ne da réer rek am nga genn wàll xam-xam. ndax loola moo lay wàccee nga mën a laaj te bi nga laajee nangu gi nga wàcc pour war a laaj rek am nga genn wàll xam-xam suñ la xamalee la ngay laaj nga boole ko sa genn wàll xam-xam am xam-xam bu mat sëkk moo tax yonent bi daan wax ne nisma ilmi genn wàll xam-xam mooy nangu ne xaw yaa ngee bëgg a dem ndakaar xamuloo yoon wa nga nangoo taxaw fan mooy yoonu Dakar ba nga nangoo taxaw laajte ko rek am nga genn wàll xam-xam bu ñu la fii la rek boo ko toppee doo wàcc ba yegg yàgg la ko xamal yéen a kepp su ca yoon wa rek moo ca def ba ca gën a garaaw nag mooy xam mooy réer te réeri ne da ngaa réer mooy xamoo te xamoo ne xamoo su ma baa ñaari réer ñoo fa daje yow réere nga li ñu waroon a xam réere nga sa bopp ne da nga koo réere su boobaa nag kooka dana laaj ñi yee ko jàllarbiku xamal ko xamal ko ne ko xamoo dara moom la shaa'ir ba di wax ne wa min ajabil ashyaai annaka laa tadri wa annaka laa tadri bi annaka laa tadri mu ne li gën a yéemu ci mbir yi bokk na ci mooy xamoo te xamoo ne xamoo saa yoo xamoo te xamoo ne xamoo dañ laa war a yee kooku jëlul murakkab la ko ulamaawu usul yi tuddee loolu moo daloon ibnu Mayaaba moom la ko maam Xalifa Ñas doon wax bi mu réeree te réeré ne dafa réer jàpp moom ko xam la ba tax muy ŋàññi sëtu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di kéeféerloo mutasawi fii na yàgg la ca aju moo tax mu ne ko am amma dara min jihlihil murakkabi bi annahu bi sabbihi sabbi nabi bi annahu bi sabbihi sabba nabi li annahu saliluhu fi tiini xaqan wa waarisun lahu fi diini kon kooka xalifa da koo xee ba pare door koo xamal kon saa yoo xamoo te xamoo ne xamoo dañ lay xee xamal la saa yoo xamoo te nangu ne xam nga xamoo kooku dañ lay xamal rek nga boole loola muy genn wàll gële ak gii muy xam-xam saa yoo xamee te yow xam nga ne xam nga demal nga xamle ji saa yoo xamee te xamoo ne da xam dañ lay xee nga mën a dem xamle ji kon maanaam yooyu yëpp dafa cee jara a xam te maanaam xam-xam boobu tax ñi mën koo xam xamle muy wàllee ci ñu koy bidd moo xam muy wàllee ci ñu koy wax loola nit la ko yàlla jagleel tey li fi jag lépp ci kaw nu bi tabaarakallaahu ci àdduna bi nga gis ko ak li nga mënta gis xam-xamam nit moo ko gëstu ba xam ko xam ngeen ne bàyyi ko fi ne yaa ngi seeti jant bi wala ngay seeti weer wi wala nga ne yaa ngi dem ci biddiw ya loola xam-xam la jël ay kànq daaj ko ba mën koo teg ci ndox ay junne ci ay nit man caa tegu ak seeni marchandise du ñu suuf xam-xam la jël avion nga xam ne léppam ngelaw rek la nga jël ko mu mën a jël ay nit boole koog seeni bagaas ànd ak ñoom naaw ci kaw jaww ji fukki waxtu ak ñaar ñaari waxtu ñetti waxtu léegi-léeg mu def ñetti fan ci ci ci kaw door a mën a wàcc ba ñaari fan ak li ci aju loola xam-xam la fekk ko xam ne dafa juddu xamul dara dara màgg xamul dara nga mën koo taxaw ne ko lii mooy baa mu mën a wax baa ba mën a wax siin mën a wax mimara ba mën a xàmmee mën a mën a mën a ijji boole ba mën a liir xam la muy liir la muy tekki ba mën caa génne waat da ca bind loola xam-xam la xam-xam boobu nag nit la ko yàlla jagleel moo tax kon nit yàlla gënalee na ko ci xel waaye yàlla gënalee na ko ci xam-xam yàlla gënalee na ko ci xikmatu mooy xam-xamu njariñ ku la ko gën le moo la ko gën ndax boo seetee dañuy wax ne xam-xam bariwut xikmatu moo bëri li xam-xam bëriwut a tax yàlla joxul ñu ci lu bari moo tax mu ne wa maa utiitu na al ilmi illaa qalilan xam-xam a bëriwut moo tax lu tuut lañ fi mën a jox waaye xikmatu mën na caa am lu bari moo tax mu ne wa man utiil xikmata faqad utiya xayran kasiir ku yàlla jox xam-xam moo lu bëri kon moom mooy li bari moo tax ñi mën caa am lu bari xam-xam nag dafa tuuti moo tax lu tuuti rek nga ca mën a am moo tax boo ca amee lu tuuti loola. tax ngay bàkku fëgg sa dënn foog lu ñu wax nga ne diw xamul dara nangam ak mel na ni gëlëm nga teg sa loxo rek nga xam la ca des yëpp na nga koo réere nag mooy li bari mooy loo xam ne kam kam buy nelaw ci sa jëmm la buñ ko xeexee rek mu xeewu te buñ la ca xeexee rek nga ne man lii xamoon naa ko waaye biñ ko xamee mënoo ko woon a waxee noonu wala biñ ko xamee giseewoo ko woon noonu dañ la caa yee kon xikmatu nag laaw lu bëree bëree bëree bëri la te loolu dafa nekk lu jege te yéeme la yàlla may nañ ci suñu mag ñi ah, mag ñu bëri lewoon nañ ko seen xam-xam ya xikma la kon gu tedd ga Seydil Hajji Maalik ko bari lewoon la moo taxoon ndeysaanam lépp ci xikma la ko tegoon ba ko soxna sa ndax say ndeysaanam soxna Safiya toggalee ñam wa amoon cofeel ci maam alaaji Maalik boole koo bëgg ko topp ko ma bu ko daan toggal du ca ñam day xorom rek nattale mu jàpp ne xorom na le na mu faw ne noonu la baaxee ndeke dafa ëpp maam alaaji Malik lekk ca lam man ndax moom daana wax ne musul passé ñetti tib benn waaye mos naa ñëw ci moom ne ko ku doon lekk nag sa premier tib nga fàttee wax bisimilah mu ne ko nga wax ko ca ñaareel ba mu ne ko boo ko fàttee ca ñaareel mu ne ko ca ñetteel ba mu ne ko boo ko fàttee ki ñetteel ba ne mu ne ko xanaa yow waaye man maa léegi musuma passé ñetti tibb am na ñoo xam ne nag trente ñenn ña bëri ba cinquante ñeen ña kudd yi liñ ci man man la waaye ku néew looy lekk yàlla leeral sa biir ku bëri looy lekk yàlla rey sa xel su ko defee nag soxna sa gannaaw bi Maam Alaaji Maalik jëfandikoo jox taalibe taalibe ku lekk rek tafli mu ñëw ci moom sukk ne waa baal ma de si Malick man kat xaw ma woon ne ñam wi dafa ëpp xorom nangam ak nangam maa ngi lay baalu ak mu ne ko maa ngi lay waatal ne yëgu ma ne yëgu ma xorom si kon kooka dem na ba gémmiñam nga xàmmeetut lu neex ak lu naqari lu neex lu lu la ca moom lu naqari lu neex la ca moom mu ne ko tamit ñaareel bi même bu naqari woon ba tax ngay tuub jarul tuub bi nga koy togg dangaa yéene woon mu neex rek xam ci ñoo xam ne tey nag bu leen seen soxna yi toggalee mu saf kaani wala mu saf xorom wala mu tàng bu ëpp ñu wékk bool ba te buñ paree tegaat ko seen kanam manqué la ñenn ñi buñ meree toj télé bi wala ñu toj kaas yi te dañ ko jëndiwaat loolu lépp manqué la yooyu yëpp manqué la kon loolu lépp waxinu xikma la wu rafet a rafet lii dëgg waaye dëgg ji dama ko bëgg a joxandoor ñëpp waxee ko ci xëtër xëtër doole ñu delloo la ko ñu delloo la ko lépp dañuy wax ne ku jël dëgg joxe ko ndoor ñëpp ñu delloo la ndoor dëgg jëm loolu musiba rek lay andi xew-xew yi tey li ci bëree bëri bëgg a joxe bëgg a bëgg a nit ñi dëgg rek la dëgg kenn du ko imposé nit ñi waaye lii rolu doomu aadama yi rawatina borom xam-xam yi mooy fexe ba ñuy xamul xam buñ bàyyee nañu bàyyi leen am nañ choix ñu tànn lu ñuy tànn waaye nit ñi boo leen bëggee forcé rek problème am moo tax gis nga rek sariya ku jàng taarixam danga ci mën a defar sa àdduna defar ci sa àllaaxira ci ak teey ci ak teey kaaral gis nga yàlla bi muy yónni yonantu bi fukki xati lëmm julli xamul lépp mooy wéetal yàlla rek nañ fexe ba jëmbat yàlla ci xol yi fekkoon na booba nit ñi jëmbat nañ ci seen xol yi xërëm ay laataag xusaag hubal ak manaata mu rëy ci ñoom bañ firndeelee ko def ko ca kaaba ga waaye yonentu bi ñëw bàyyi leen nag seen xërëm yàgg ca kaaba ga waxut ca dara neexut ko yàlla moo ma yónni ko ca neexut ko mu bàyyi ko ca noona muy fexe muy màbbu xërëm yi ci seen xel yi di ko màbbu ci ci xam-xam ba nga xam ne keroog ba mu waree màbbu xërëm yi fekk màbbu na ci seen xel yi ba pare ñoom ñoo jël seen loxo ya màbbal ko boppam ba muy wax ne waqul jaal xaq wa saqal baatilu bay dóor xërëm bu njëkk ba nga des ñoo ko mottali waaye bu jaamu xërëm du dëgg commencé dal ca kaw xërëm yi dañ ko fi jëlee tey mu indi fitna joo xam ne fa muy jëm du fa yegg moo tax kon ku am dëgg lépp di dëgg nga bëgg koo jox nit ñi ndoor dañ lay delloo dëgg nga ndoor rek nga am problème moo tax kon ba mu ñëwee fukki at yi lëmu maanaam pas-pas la doon jàngale fexe ba màbbu xërëm yi ca xolu nit ña bala koo màbbu ca pegg kaaba ga ba mu demee ba màbbu ko ci seen xol yi su boobaa nag màbbu ko ca kaaba ga day yomb day nekk jekkali rek ñu sax ca loola sax ca loola fukki at ba mu mokkal ko mu sax ci xel yi xam ne pas-pasay jiitu mu door a indi julli ñetti at ñetti atu lëmm joxe asakaar yi ci aju amul julli rek ne li ngeen doon wax ci seen xol ne yàlla kenn la moom kenn dong lañ war a jaamu mooy kii bind mooy kii wërsëgal dem leen ngeen defi santaaneem yi loolu leen leen doon test ndax rek laa ilaha illa laa ji ñu wax dëgg la am waaye julli gi yokku dara yàlla testa leen ci rek nga taxaw waaye buñ la boo gisoon julli formalité bi te xamuloo la mu ëmb dëgg-dëgg doo xam sax ni muy niru taxaw rek mag mu taxaw sànni ay loxoom kàbbaar commencé benn mu yor ko wala mu teg ko ci dënnam commencé jàng fatiha ku saar dem ba ci kanam mu téye ay hóomam dem ba ci kanam mu siggi dem ba ci kanam mu sujjóot dem ba ci kanam mu toog doo xam lii lan la loolu lépp fekk ma ngi fay jublu ne lam jëmbatoon ci seen xol yi ndax jëmbatu na am déet ñetti at ñi di ko yi mu ne su fekkee lii dëgg la tamit li ngeen jëlee ci julli léegi nag li ngeen eh, eh, eh, maanaam am ci alal yi asaka yi bokk leen ko seen mbokk yi ñu seet ba xam dëgg la am déet fekkee ne gëm nga yàlla mu wër sëggal la ba jox lu ëpp sa soxla buy dëgg ci yow li nga xam mën nga koo bokk ak ki amut koor weeru koor ñëw mook mook asaka magante wuñ même at mi la ndax ku xas roode ci wéetal yàlla roode ci julli joxe asaka ak aj màkk dana yomb maanaam joxe asaka ak weeru koor dana yomb ñu sax ca loola parce que juróom-ñetti xat jëm juróom-ñeent aj màkk door a ñëw gis nga ko ba mu ñëwee tamit lan njàngale yu mag yam ëmb la ci aju lépp kon dafay tekki ne dëgg soo ko amee doo ko doxe ndoor da ngay joxe par benn muy sax ngay joxe par benn muy sax ba lépp sax waaye jël sa dëgg ji boo ko imposé nit ñi ndoor ne dañ koo war a jël carrément léegi léegi dañ la koy delloowaat lépp dañ nga am problème moo tax yàlla lépp ñu indil ñu tudd baatu seede beeg tudd julleeg or weeru koor ak joxe asaka ak añ màkk lépp dëgg la waaye joxuñ ñu ko ndoor dafa ñu jox par benn benn ñu koy pratiquer par étape ba lépp mokk par lépp nag ñu door koo lépp nag ñu door koo mën a pratiquer lépp di ko defa ndoor waaye njëlbeenul islaam ñaar fukki xat ak ñett yonantu bi fukki xat yu njëkk yëpp wéetal yàlla rek amul julli ñi nekk ca loola ñetti ati lëmm julli rek ku fu ay deekum wa aqimu salaata rek xeex amul julli rek mu jigéen nag ñi gàddaay yi ci la asaka ñëw ci la war weeru koor ñëw ci même at ñu noppalu toog di ko pratiquer juróom-ñetti at ba juróom-ñeent léegi nag aj màkka door a jëw kon dëgg kenn du ko imposé nit ñi ndoor ndànk-ndànk rek mooy defar lépp gis nga yonent bi mu ñëwee màkka fekk ñu wérale kaaba ga xiram yaag na kaaba ga mel dafa wax Aysa ne ko ji nga sa nit ñi buñ nekkuloon ay tuubeen ma màbbu kaaba gi ndax dafa mooy ponk bi ko yonentu yàlla Ibrahima tabaxee woon waaye boobu bu xëyoon ñëw ne day màbbu gi coow la bëri ba du mën a tax fam yegg waaye gis nga ko waxul ca dara dafa ko wax rek ne ko bu taxutoo nag sa nit ñi niñ nekk ay tuubeen yàgguñ ci lislaam ba màndi ci danaa màbbat kaaba gi ba delloo ko ci fondation Ibrahima ba wa is yarfoo ibrahima qawaida min al bayti wa ismailu ma delloo ko ca waaye kon am na ci loo xam ne boo ko bëggee def bëgg a ñëw dal ca kaw rek du sotti ñëw rek fekk ni ñaa ngi julli nga ne li ngeen nekk ay xërëm la li ngeen nekk ni siyaare bàmmeel yi ay bokkaale la li ngeen nekk nangam ak nangam la bëgg a dindi loola ci nit ñi ndoor problème dong la indi waaw dëgg dafa yaatu te dëgg dafa sakkan kenn ko ne la nga jàpp ak na ko jàppee rek la boo bëggee noppalu defal la góor ga waxoon maam Alaaji Amadu Dem bul weddi kenn sariya dafa yaatu sariya kon dafa yaatu nag fa nga ca yaatoo jàpp ca keneen ka mu yaatoo nga bàyyi ko fexe ba ñu nekkul ci sariya ñu wax ak ñoom na naxanteel ñoom ba ñu ñëw ci biir diina ji waaye ngi ci xas nekk jërëtul téeféerloo jërëtul xuloo jërëtul xeex jërëtul wax ju bon ba muy yàq lu bëree bëri di indi fitna boo xam ne la muy yàq moo ëpp la muy defar loolu lépp sariya santaaniwut ko kon gis nga euh, doomu aadama yàlla jagleel na ko ci xikma ma lu am solo la muy xam-xam buy jariñ nekk lu la jege lool te buñ la ko waxee rek nga yéemu ko daloon na suñ fàllu mbàkke xakim la woon benn bis benn waaye dafa ñëw di ci moom tabaski ku yaatu ku tabe ndee sëñ bi tabaski dafa jot tawoo ma dara mu jël benn taalibe ne ko jox ko ci xari tabaski yi mu jox ko nag waa ji ni muy wommatee bay génn kër gi rek bëtam sànnee ko rek mu gis ponkali xar yi yar rak sëñ bi ah jox nañu ma de waaye gaa yi de ci xar yu ndaw yi lañ ma jox damaa bëggoon ñu jox ma ci xar yi sëñ Fall ne ko xar yi yar yi nag ñi ma yar laa koy jox xar yi nga xam ne dañ fay juux si ñu ñëw juux si rek ma jox leen ko mu jeex xoolal wax jooju ni mu amee njariñ ak ni mu jegee te nekk loo xam ne mu ngi suulu ci sa kaw te boo ko xamante munu koo waxee noona kon loolu maanaam mooy xikma xikma bu ci nit ki di waxee wala mu ci jëfee léppam day tegu ci fi mu war a tegu du taal fitna du yàq dara du tas ak mbokk du indi fitna du yàq dara waaye boo bëggee jël mbir mi bëgg koo teg ci lu dul xikma yow sa bopp danga nga sonn da nga te li ngay laate du dem da sonn rek te du dem fenn taal taalab gattax lay doon tàkk gi mën naa xiir waaye ci fay dong lay mujj kon mbir mi fokk ñu teg ko ci xikmatu ni ko yàlla digalee woon yonantu bi su ko defee kon doomu aadama jooju la yàlla jagleel xikma moom la yàlla jagleel fasaxatul mantiq mën a taxaw wax wax ja leer ci langue bu mu mën a doon moo xam ci espagnol la moo xam ci anglais la moo xam ci français la moo xam ci arabe wala ci olof ci séeréer la làng bu mu mën a doon wax ja leer ñi mën caa tegtaloo dem jariñoo ko kooka nit a ko jagoo waaye nit tamit la yàlla jagleel rafetal meloom wa rafet tollale taxawaayam ba dama ko waxee woon démb boobu ba nekk ca kaw ak nopp ya ak bët ya waaye bu nekkoon tis bu bëggee gis ak am problème yàlla tamit jagleel nit muy jënn jëmm joo xam ne li jëmm yëpp man moom kenn mën na ko dafa am ci rab yoo xam ne te du dëpp rek di wasatu lañ man am ci ñoo xam ne jël seen ñaari tànk ya yu kanam yaag yu gannaaw ya samp ko di ko doxee lañ man am ci ñoo xam ne tëdd rek lañ man am ci xam ne jaaxaan dong lañ man waaye kenn nit koo xam ne kenn nit ki mooy mën a taxaw waaxu ba xolam sedd lu mu bëgg a xool mu xool ko su bëggee sëgg mu sëgg nii ak la muy yundu su ko neexee mu tëdd tëddee jaaxaan wala mu tëdd dëpp wala mu tëddee ndeyjoor wala mu tëddee wet yooyu nit doo nga ko man waaye yi ci des mënuñu ko ñii buñ mënee tëddee dëpp duñ mën a wetu ñii buñ mënee wetu duñ mën a dëpp na ñi buñ mënee yurundu duñ a taxaw seen ñii buñ mënee taxaw duñ mën a sëgg waaye boole sëgg ak tëdd ak wetoog waaxoog yeneen yi ci aju kooka nit dong moo ko jege kon xalaxaka fasawaaka fa adalaka fii ay surati macha rakabaka dëgg dëgg li yàlla defal li nit ko fa yàlla lii lépp di ay xéewal yu sotteeku yoo xam ne yàlla defal na ko nit muy lu bëree bëree bare bare bëri gis nga ko tamit nit moomu la yàlla jagleel wërsëgal ko gannaaw bi mu sellalee jëmmam ji mu ne ko tamit lu sell dong ci ngay dund jox la ndox mu sell nga di ko naan bàyyi fi mu nëx mi mu yàqu mi jël ñam wu teey wu sell wu laab baax lool di jariñ sa dund nga di ko nga di ko jëfandikoo ñi segg ko defar ko nañ ko war a defatee nañ ko war a defaree bu laajee togg baag bu laajee lakk ak la ci aju lépp ñu def ko kooku doomu aadama dong moo ko jago waaye tamit ne ko gannaaw bi nga nekkee jëmm ju tedd ma teral la danaa la teral tamit ci yére yu yiw yu sell ngay sol nga sol yére mu jàpp la natt ko ci yow ñaw ko nga mën a taxaw waaxu mën a taxaw tëdd mën a def népp yow dong yaa ko jagoo ne ko tamit gannaaw bi nga solee yëre yu jekk ci fu dëkk fu tedd ngay dëkk mu teral la nga tabax sam néegu ñax wala nga tabax sab seng wala nga tabax sab terrasse wala mu tabax sab étage wala mu nekk ab soto loola lépp yàlla doomu aadama la ko jagoo mu ne ko gannaaw bi nga dëkkee fu teey fu tedd fu tedd di sol yére yu rafet di lekk lekk gu teey sa jëmm ji nekk di jëmm ju màgg dama na la danaa ut lu lay transporter foo bëgg a dem danaa tàggat lu la fa yóbbu nga ne ko ci jéeri ji laa bëgg a dem mu andil la euh, mu andil la oto yi andil la métro yi andil la saxaar gi andil la sareet yi andil la vélo yi andil la puus-puus yi loolu lépp mu ngi transporté nit ñi di leen yóbbu lépp yàlla tàggatal ko doomu adama nga ne ko ci géej gi laa bëgg a dem mu tàggatal la séeri yi tàggatal la bato yi tàggatal la gaal yi nga dugg ci yaag sa bagage yi fu ne nga mën a dem doo am problème nga ne ko dematuma ci jéere ji dematuma ci géej gi ci jaww ji laa jëm ndax fi ma jëm dafa sori mu tàggatal la avion bi nga taxaw def say formalité jël say bagage dugal ci ñi enregistré la nga nga dugg jël sa place takk sa ceinture tabaarakallaahu avion bi décollé ànd ak yàgg ci yàgg ca nekk ak bagage yi ca nekk naaw ak yow ci jaww ji fukki waxtoog ñaar juróom-ñaari waxtu léeg-léeg ñaari fan nga yàgg ko ci lépp di ca lekk di ca naan di ca jëm toilette di ca julli loolu lépp mu mel ni yaa ngi ci kaw kaw kaw kaw kaw kaw kaw kaw jaww ji loolu lépp yàlla tàggatal na la ko kon yàlla lim tàggatal doomu aadama doomu aadama munu koo fay yàlla yàlla tamit teral gin teral nit dafa dafa màgg ci walla xadd karam naa ba bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri loolu xam naa boo bëggee xam la cay tagu nga topp ma incha allahu ci waxtaan wi di ñëw ma sof ak yow ci li ma sos ak yow ci teraanga yu limu yi yàlla sotti ki doomu aadama bokk ci digal malaaka yi ñu sujootal ko nit dong la yàlla mos a samp digal malaaka mu sujootal ko waaye yàlla amul fenn fu mu ne nit kaay nga sujootal malaaka loolu lépp day day tekki te daay ak nit mala yeeg bàyyi ma ñëw nañ tamit tudd sujootal nit te nit mos a sujootal bàyyi ma yonent bi toog na euh, maanaam gàtt yi ñëw fekk ko fi mu toog di ko sujootal ba saxaabi yi ba ne ko comme ñun xamuñ sa àq ba yàlla kamal bàyyi may sa àq bañ lay sujootal te ñu ñëw sujootal la ak la ci aajo lan leen tontoo nag li ci aju loolu ci waxtaan yi ñëw ba ma ci toppee maanaam ma ñëw ci ak yow insha allahu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa wa barakaatu rahmatullahi wa di del siwaat ci kartanal yàlla fas yéene sof li ma sosoon ak yow ci waxtaan yëpp passé ci tedd nga gi nga xam ne yàlla teralee na ko doomu ak xéewal yu bari yu màgg yi nga xam ne dotti na ko ci jëmmam ji di xéewal yoo xam ne bu ko doon jéema lim wala mu koy compter wala mu koy jéem a takk tamit du sotti wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha xéewal yooya waxoon naa la démb ne jagleel gi mu jagleel doomu aadama gën ci jolaay gën ci colaay mën a solu man laa romb doo ko joxoñ ba bokk na ca bala ngaa xam liy solaay di jariñ xéewal ga rek nga ñàkk ko boo ko ñàkkee mel ni mala yi nga xam ne koo romb mu mën laa xool xoolaat la wala mu joxañ la waaye gis nga mala yi amuñ lu ñu nëbbee lañ war a nëbbu foo toog yaa ngi jàkkaarloog ñoom ca loola yow nag yàlla suturaal la sutura bu day nii jox la yére ca nam gën a rafetee ca nam gën a taaroo ca nam gën a gaarant mu may la ñaar bi ki njëkk dana la nëbbal li nga bëgg mu nëbbu ñaareel bi dana la jural ak sañse loolu xéewal la jagle la tamit ay dëkkuwaay kem sa kartan fi mu toll bu sa kartan tolloo ci néegam ñax baax na am na ñu ko xamut tolloo ci seng baax na am nañu ko amut naka noonu tamit ci e-, ci terrasse ba ci étage ba ci nga am ay sato yu ci aaju nit koo gis daal lim mën a xamte yàlla dafa bari ndax koo gis rek ci digg bi la ne kenn wut ci pegg bi digg bi mooy am na ñoo tene am na ñu la tene tenente nag moo fi ne kii mën na laa tene ci dëkkuwaay gën la ko fuuf nga tene ko ci wér-gi-yaram kii tene la ci wér gi yaram nga tene ko ci njaboot kii tene la ci njaboot nga tene ko ci wërsëg waaye bokk tene ñëpp ci lépp yàlla jagleelu ko kenn moo tax foo toll santal yàlla ne maa ngi ci digg bi am naa ñu ma féetee ndeyjoor am naa ñu ma féete càmmooñ am naa ñu ma féetee kanam am naa ñu ma féetee gannaaw su boobaa nag xoolal ñu la féetee gannaaw ndax nga mën a sant yàlla bañ a xool ñu la féetee kanam ndax su boobaa ci wér bët ngay dee dootoo santati yàlla li ëpp ci ñun nag dañuy xool ñu ñu féetee kanam te mooy ñu ñu tene bañ xool ñun ci ñu tene moo tax ñëpp kenn santatut yàlla di ci ëpp jàmbatu rek te loolu yàlla yëg na ne yàgg na koo yëg moo tax tamit bi mu signalé loola wax ko danoo se ko dafa yàgg lii wa qalilu min ibadiya shakur ñu may sant ñu néew la waxut ne wa qalilu min abadiya shaakir mais dafa ne shakur shakur dafa jafe ci siratu mubaalaxa dafa jafe shaakir bokkut ak shakur shakur mooy koo xam ne bu la yàlla defee nga sant bu la yàlla defalee nga bu la yàlla defee mooy teg lay nattu ci sa bopp wala mu teg ko ci sa njaboot wala mu teg ko ci sa alal nga muñ boole kook sant ne mënoon naa ëpp lii ndax dogalu yàlla ya amul dayoo kenn waru wax ne fii la waroon xem bu la nattoo ci dagg sa benn tànk nga sant ne am nañu ko amul bu ko neewoon dagg ñaar yi bu ci dagg sa tànk ak sa loxo am na ñu ñàkk ñoo xam ne faruñ ko am wala dagg nañ seen yëpp su ko defee kon dogalu yàlla bi ni mu tegoo ci sa kaw rek nga muñee ko ko santee ko ko wane ne mënoon naa ëpp lii ndax yëg naa ne dogal yàlla yi amul limite ne fii la war a yem ñaareel bi tamit bu la yàlla defee nga sant moo xam dalaa defal ci sa yaram nam ko daan defalee yonamtu bi rafetal ko jekkal ko ba bu daan xool ci seetu sant yàlla lay dafa wax ne yow yàlla nii nga rafetalee sama bind bi yàlla nga ko rafetalee sama jikko ji waaye rek toog seetu commencé kontaan man kat ndeke coof laa wala ñu ne la coof nga ngay kontaan réere sa bopp la saa yoo seetoo xool na nga bëgg xool nga bëgg nam man mu mel ko neen yow yàlla li ma gis ci man ni mu rafete yàlla nga ko rafetale li ma gisul ci man waaye xam nga bu sa bind rafetee te sa jikko rafetu sa jikko ju ñaaw ji dana dem ba rafetal sa bind bu rafet bi boo si solu woon rafet sa bind jekk nga taxaw di saaga sa jikko ju ñaaw ji rafetal na sa ñaawal na sa bind bi nga yàlla bindal rafetal la nga jekk nga taxaw di tuur ndox yorewuloo ndox sa bind bu rafet bi ñaawal na sa jikko ju bon ji bind la nga rafet na nga war a mel nga mel ko nga sàngara sa jikko ju bon ji ñaawal na sa bind bu rafet bi ku la gis xeet la noona ca cigarette sa noona ca doroguhu ga noona ci ànd ak ñoo war ta ànd ak ak jaxasoo ñoo war ta jaxasoo comporté woo comportement boo warta comporté xam ne ku la gis xeeb la ku la gis du la nawati yooyu yëpp lu mën a nekk ci yow ci rafet bu ca yoo yenn xeer dafay mujj ñaawal moo tax maanaam jikko ju bind bu rafet jikko ju rafet moo koy garde waaye bu bind rafetee jikko ñaaw jikko ju ñaaw ji mënta gis dana dem ba ñaawal bind bu rafet bañ mën a gis moo tax bu musaana seetu rek sant yàlla yow yàlla nii nga rafetalee sama bind bi yàlla nga ko rafetalee sama jikko ji moo tax jikko jaa rafet ba yàlla tagg ko ca ne wa innaka la ala xuluqin azim jikko jaa rafet ba ca la ko yàlla mujj tagg tagg ko sax ca bind ba dana tudd cër ya nii rek par benn waaye tudd bind ba ci rafetaay ga amut waaye jikko ja rafetaay ga wax na kon loolu lu jar a bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kon nit ki jikko dafa am solo ci moom muy sant yàlla bu la yàlla defalee tamit dafa la xéewal yaa ngi jàng saa yoo defee compo nga bokk ci yëpp première yi boo defee examen bokku soo bokkuloo ci nga xam ne dañuy dañuy mujj maanaam luus ca loola lañuy ñu wuti ñaam ko yàlla jox la wërsëg yàlla may la ba tànk yàlla may la may la may yooyu yëpp santee ko yàlla bi ci tegu tamit bu la yàlla defee kam dafa laa rayal sa doom sa soxna sa njaboot wala mu def la ci yàq sa alal ñu sàcc ko wala ñu nax la tiriyaa ko wala mu lakk ak yeneen yu ci mun di aju na nga boole muñ ak sant kooku moom la ñu tuddee maanaam shakur wa qalilu min abadi shakur shakur mooy koo xam ne su ko yàlla defee mu sant su ko yàlla maanaam su ko yàlla defalee tamit mu sant bokkut ak Shakir Shakir mooy koo xam ne bu ko yàlla defee mu sant bu ko euh, mu jàpp njàmburam du ca wax nopp wala sax léeg mu xalab waaye Shakur na moo ëpp doole bu la defee bu la defalee yépp nga boole sant sant gu waaye bu la santee bu la sant bu la defalut nga jàpp sa njàmbur saakir nga waaye nekkuloo sakuur kon wa qalilu min ibadiya shakur nit ñi santatuñ sant dafa am doole ba tax na jamono ji ñàkk sant gee tax kenn ku ci nekk li la yàlla defal ci xéewal fi nga toll ci ay at la la yàlla defal deful ko woon say baay deful ko say maam te ñoo la gën fuuf dàq laa jaamu yàlla te li nga am amuñ ko woon waaye taxul yow nga sant kenn ko ne fi nga toll ci say at yéen ñi may déglu ci góor ci jigéen ñu ci bëri da cee yaay yaay toll ak bàyya li nga am ci wërsëg am ko ci ndomba tànk am ko ci daraja am ko ci yeneen ak yeneen ñoom ñoo nga ñoo la gën te ko woon te réew ñu doon sant rek waaye fu mu ne nii ñaxtu wi dafa bëri kenn ku ci nekk ni la dal da ngaa foog nite la ko teg ba tax na lu ci bëri ci dogal yi. maanaam wéeratuñ ko yàlla moo tax weddi yàlla yi bi ci gën a fës ji jamono mooy weddi dogal ak yàlla jël dogal yépp wala li ci ëpp di ko wéer ci mbindéef ba tax na tay ñu ci bari tey ci dëkk yi may déglu yàlla raytu fa nit yàllaay ray de waaye raytu fa ku fa dee ñu jël dee ga am ñu ko wéer bëri na ci tey place yoo xam ne yàlla ñàkkal ñu waaye yàlla ñàkkal ku fa kenn ku fa ñàkk commencé nañ jël ñàkk nga am nañ ko wéer dañ koo liggéey dañ koo soxoree dañ koo def lii dañ koo def laa ñu ci bari tamit place yu fu waaye mën a nekk yàllaay feebarloo maanaam mooy feebarloo waaye nag wa iza maritu waaye nag ñu ci bëri yàlla feebar loolu tuut leen feebar bu leen dal wala mu dal nangam am na ñu ko wéer dañ koo liggéey gaa yee ko jàpp dañ koo def nangam ak nangam. wax caa wax a wax bala nga xamoon ci lu baax far yàq ba tax na ji jamono daal li gën a fës ci luy nit ñi gën a mën a am gën koo joxe mooy làmmiñ wu ñaaw te lu jar a jaaw lu jar a daw la lu jara ba bàyyi xel la lu mën a yàq la bu ko defee mu dellu di sant yàlla ñaareel bi ñeneen ñi tamit jàpp nañu leen dal état leen ko teg guddeeg bëccëg ñaxtu rek foo ca dem ñee ngi takk ay morso yu xonq bu sa kër lakkee sax nga ne état bi moo lakk sama kër gi ñu takk morso yu xonq sa darab bi sa kaw lal xotteeku nga takk morso yu xonq sa bi euh, bëgg a daanu wala mu fett nga takk morso yu xonq bakkan sa xar yi muy sa xar yi réer wala sa nag yi nga takk morso bu xonq courant coupé wala ndox mi wala yeneen ak yeneen ak yeneen yu ci bëri takk morso yu xonq rek ñenn ñu loolu dana leen yóbboo ñu koy ñaxtoo ba wane ne lii ñoom ñoo ko def dem ba buntu palais wala nga dem buntu assemblée wala nga dem buntu gouvernance sotti sa bopp pétrole taal te perte nga ñaari yoon la nga xamoon naka néew ñàkk nga ko dañ koy donn li nga doon wuti ba tax nga li dal la doo ci jot te boo ca dee to nga dee dem safara mu gën ci am métti Sëriñ Mbàkke bu sa waxoon na ko benn waay dafa mos a xaru ñi di ko jullee ba pare romb ko ñu ne ko kiilal ñu ne dafa xaru woon de moom lañ doon jullee nii mu ne dafa amoon lu ko naqar yu ne xakkay ah dañ koo def lu ko naqari lool moo taxoon mu xaru mu ne fee mu jéem war faa fanaan yi danga fa fekk lu ko gën a naqar du ñu xaman dara a xaru foofa ndax su ma laa yemutu fiyaa wala yaxyaa kon yenn yi matu ko kuy ñaxtu ñaxtul ci yàlla waaye ñaxtu jëmee ci mbindeef mu lottu koom yow foo jëm kuy ñaan ñaanal yàlla kuy xettaliku xettalikul ci yàlla soo bëggee loo xam ne da bëgg mu faju kenn ko mën a faj bu ko yàlla dogalee kooka nga koy sàkkoo yàlla koy tàggat ba mu ñëw jox la ko mu neex ko mu naqari la doo doo ci sonn kon kuy ñaxtooti demal nga ñaxtu ci yàlla waaye ñaxtu jëmee ci mbindeef ba fàttoo ñaxtu jëm ci yàlla fu njëpp bàyyi nañ fi adduwaawu silaahul mu'min bàyyi nañ bàyyi nañ fi maanaam la yàlla waxoon ne wa isa saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani moo tax buntu buntu yi bunt yi ci ji jamono muy yoon yi yoon bi ci gën a ñàkk ambutu yaas mooy ñoon yoonu tàllal loxo ñaan yàlla ñu bëri defatuñ ko lu ci bëri lépp rek tàllal loxo jëm ci mbindeef nangam ak nangam ca ministère ba la am ak rendez-vous nekk ca ba tarda julli président laa am ak say rendez-vous fa laa neexoon nekk ca ba faat say waxtu nangam ak nangam la ñu war a def tey nangam lañu war a taxawee tey feetu nangam la nangam la ñuy immigré nekk ca ba ba waxtu ya passé la ci ca conférence ba nekkoon ca cérémonie ba lañ nekkoon ak nangam ak nangam nekk ca ba faatu waxtu foo ko teg yooyu yëpp tey lépp rek yaakaar di doole woo ko xamul doole bàyyi fi yàlla mi am doole nag mu bàyyi laaj ci amul doole ngeen las lasi ba sonn du sotti kenn ku ci nekk mu di jéppi sa morom waaye mbir yi ñuy takk morso yu xonq di ko ñaxtu buñ ko boolee woon takkee ko morso yu xonq tàllalee ko suñ loxo yi laabalee ko suñ xol yi di ko ñaan yàlla luñ bëgg mu def ko te njëkk nag ñaxtu ki tànk ki takk morso yu xonq mooy bala ngaa ñaxtu di sàkku luñ la defal da ngaa war a seet ndax li nga war a def def nga ko déet bala ngaa laaj say droit da ngaa war a seet ndax say devoir def nga ko wala déet suñu devoir yi ñu war ci yàlla ci def santaane ni ay tereem ak laabal xol yi génne ci soxor ak añaan ak rëy bëgg àdduna ak ngistal ak la ci xaju lépp suñ ko defoon dama ne bala ñu takk morso yu xonq yàlla boole ñaan ñu faj suñu aajo yi waaye buñ fi nekkee nag mooy yàlla ji bëri yàlla boole leen ak ay njiit yu leen jiite te duñ am ci yéen yërmande ngeen bokk sonn te du ngeen jege kon Sénégal yi dañoo fonk ñaxtu dañoo fonk morso yu xonq dañoo bëri jooytu te li ci ëpp duñ ko jooytu jëmee ko ci yàlla jëmee ci mbindeef rek lu la dal na ne ma ko teg nangam ak nangam sa sàq mi lakk nga ne takk morso yu xonq sa fas wi réer nga takk morso yu xonq sa gerte gi nekk ci àll ba ñu sàcc ko nga takk morso yu xonq ah! léegi-léeg sax sa fóot mi bu bëree ñu war koo fóot nga dagale fóot mi takk morso yu xonq ba kañ fi ñu jëm moo tax damay wax ne malaaka mi ëppi problème ci malaaka yi mooy malaaka mi yàlla dessiné ne ko jëlal ma Sénégal yi nga joxal ma seen loosuma ci aljana bu ko ci waxee rek yi yem ci loosuma bu mu ñu yóbbu dana am problème bu fa gaa yi toogee ci loosuma yi dugg gestu téen seen gaa yi ci immeuble ya gën a gudd ya dañu commencé ne voilà moom yàlla ne ko nañu dugal aljana loosuma yi ñu indi baaxut fii gis nga fii ñee ñooñu gën a kiile nangam ak nangam coow la bëri da yàlla ne far leen génne leen ndax fii kat laa yasmuna fiihaa laxwan wala kisaaban xew fi kon ak ñaxtu ci kenn dong ki man lañ koy war a jëmale boo yooxu da ngay jëmale sa kàddu foo yaakaar mu faj kooka nag ki mën a faj soxla yi kenn dong la mu yàlla di rabbul izzati wal jabarut su ko defee ni manqué ñi ñi wàññi ñi ñaxtu yi remplacer ko ñaan remplacer ko toroxlul yàlla remplacer ko def ndigali yàlla yi remplacer ko bàyyi tere yàlla yi maanaam li ñu bëgg lépp mi ngi laxasuti def ndigalu yàlla yi rek ndigalu yàlla yi buñ ci bokkee def lañ bëgg fekk suñu naka noonu tamit li ñuy di ko ragal ak yëpp di ko daw mi ngi laxasu ci tere yàlla yi saa yuñ def tere yàlla yi la ñu neexut la ñu naqari lépp laxasu te ñëw fekk suñu te duñ yu bëri yi yëpp tey moo ko waral kenn ne yaa am ñu ne jàññ waaye comme nekkul ne nañ moo tax problème ba ñu yaakaar ci diggante bàyyi maam yi nekkoon ay maami leer amuñ dara waaye ñàkkuñ dara luñ soxla mu faju ku ci masa am million bu mu denc ñaari fan am ko waaye boo ci amee soxlaay fukki million mu faju tey ñun ñi tey nag ñàkkuñ dara mais amuñ dara moo tax dañu dund ci jamono joo xam ne dara jeexut mais dara doyut mag ña noonu dund doon dund ci jamono joo xam ne dara amut waaye dara jeexut amuñ dara waaye jeexaluñ dara ñun ñii nag jeexaluñ dara mais amuñ dara lépp lu ko waral mooy ñàkk barke gi ak tilim gi alal ju tilim ji ci nga xam ne moo ci nekk ndax ñoom li ñu amoon lépp dafa ne nañ yow nag boo amee li na daañu te nekkul nañ du sotti du mën dara loo ca dugal mu yàq nga gën a am problème moo tax mel ni daanaka lépp ci nit ñi arrière rek waaye avancé bëreetut ñii doon ay commerce ñu ci ëpp daanu nañ ñi ay baykat yu mag lañu ñu woon daanu nañ ñii ay transporteur lañ mën nga ci lim ko xam ñeent fukki oto soo ko fëggoon mën ta génnee cent mille francs ñii ay commerçant lañ ay magasin lu ci bëri banque bi ñi tay la seen kayitu kër yi nekk ci nangam jafe ci la ñëpp dund ay baykat lañ amuñu jiw dañu mujj dem lebi ñu bay leen buñ bayee ñu taxawu leen lañ ci war a génnee ñii problème suuf lañ am ñii nangam ak nangam moom daan ku amul problème amul kenn ku ci nekk tey gën gën a sëf moo ci nekk ñii ci boppam dañoo ñenu problème ñii boot ko ñii mujj maanaam bokk problème ñii moom di mujj watat problème jëmee fu kenn xamut te lépp li ñu ko yóbboo du dara ñàkk a dellu ci yàlla rek dellu gu wér wa anibu ila rabbikum bu amoon dëgg-dëgg li ñu soxla lépp faju te duñ am problème su ko defee kon yàlla wàccoo nag ñun ci teral ñu teral na nit teral bi mu teral nit a tax li muy indi nit ci kaw suuf dafa fekk lépp pare bisab dimanche ci la yàlla commencé bind àdduna bi altine talaata àllarba alxames lépp pare dañu demee nit des diggante takkusaan ak timis ci la bind nit mu yaadama wan ko ne ko li ma doon bind yëpp yaa tax ñëwal nga jariñoo ko yow mii nag soo xamee sa bopp man dong naa la tax a jóg ndax li fi des yëpp yaa ko tax a jóg jinne yeeg malaaka yeeg njanaaw yeeg géej géej jaww jeeg mala yeeg lépp yaa ko tax a foo ko fekk jariñoo ko waaye nag yow moom man dong naa la tax a jóg su ma la taxee jugal doon problème waaye nag léegi problème bu bari bi mooy yàlla mi nga xam ne moo ñu war na tax a jug taxatu ñoo jug li ñu tax a jug dafa bëri kée ngi jug jëm ci njaboot kée ngi jug jëm ci alal kée ngi jug jëm ci daraja kée ngi jug jëm ci mbooloo kée ngi jug jëm ci lu nekk jafe-jafe yu bëri yooya moo dem tey ba jural ñu jafe-jafe yu dul jeex ci suñ kanam naxal suñu dund gi ba booy julli di xalaat booy wirdu di xalaat boo jàngal quran di xalaat yaa ngi koy def waaye defoo ko ndax sellal ga ca war ak teewlu ga ca war mënatoo ko defati yépp di ay problème yu daanu suñ kaw su ko defee kon nag maanaam yàllaa ngoog teral na nit li fi ne lépp nit a tax ba tax na dafa bind lépp lu ñuy war a jariñoo door a indi nit moom door koo bind wan ko ne ko kaay nga jariñoo li ma bind soo guddalee sa hitte yàkkali sa xam-xam lépp da ko mën a jariñoo mu tàggatu woon la gannaaw su waaye nag huti hut si ma man rek boo ma hut see mu dëggu ci sa xol li ci des yëpp hut si la waaye soo hutee lee bàyyi ma fi man yàlla li nga doon huti yëpp wan la gannaaw daw tay nag ñun dañoo hutee tut yàlla yàlla dara lañ bëgg wala dara ja sax mu ñuy gënal yàlla moo tax tey yañ waroon a wuti yañu doon war si wut si ñun ñooy daw di ko wuti moom mu ñuy gën di daw dem na ba mu jigi àll bi nga amoon di ko bay xat naag yow yow baykat bi mu ji nga fu ne yaa ngi koy luwe ji tool te du tere yaa ngi am problème mu dund sa maam ak baay yi nekkoon si gannaaw kër gi fii rek lañ doon bay gor yi bees yi ba ba xewagut te dañ daan bay dund di ca dundale di ca maye di ca saraxe ba weer wi del si waatu duñu am problème yow nag tey sa tool yi soxna yi rek moo ëpp sa tool yi maam yi ëpp say tool yi papa yi te mënoo dem lépp lu ko waral gàññi gi mi ngi fi mais naan ñi néewu yow commerçant bi li nga yore ci magasin wala li nga yore woon nga doon xëy di ko seere ci alal ji xëy mën a soqeeku jaay 3 millions léeg dëkk bi neex nga jaay 9 millions maam yi nekkoon seen bàyyi dund ba dee seen wër sa wéeg boo ko régalee amul matul 9 millions yàlla barkeel leen ñu yore ñeenti soxna. man leen a yore dépense jor seen doom yi ñuy jàng ñu yar leen toonu siraatal mustaqima amuñu benn problème yow nga mën a tey bët bu set nga yore neuf millions wala deux millions te tey nga am problème amoo ci dara li ko waral ñoom dañoo dawoon wuti yàlla yéen ñuy wuti yëpp daw wut si leen léegi nag ñun dañoo daw wan yàlla gannaaw yéen doon wuti yëpp daw wan ñu gannaaw mooy problème mi ngi dal ñun ñëpp ci jafe-jafe yooyu lañ nekk ca commerce te transporteur ya ñuy commerçant ya ak transporteur ya nga dem ca caawa ga noonu ngay demee ca commerce ca maanaam baykat yaag tool ya noona ngay demee tey ci lu ne rek problème am na ci noona ngay demee tey ba ca moodu moodu ya bu njëkk ba moodu moodu rek may bu njëkk la waaye daanul nekk nag may bu dëkk léegi nag moodu moodu dootul may bu njëkk dootul may bu dëkk ñi leen doon soxla ñee leen ñeexatuñ leen dañ leen a mujj yërëm dañ daan nekk foofa di yónnee ñu nekk fii tey ña fa nekk ñu ëpp problème gën a bari léegi dañ leen yónnee foofu mu gën nekk problème dañ daan yoon ne bippe rek woo la tey nag ñoom ñooy bippe bëgg nga woo leen ngir jafe-jafe yu bëri nekk fa mën a nekk ci liggéey di daanoo ko jub yaa ngi ambila yaa ngi dugg ci fu ne bu dégg bëccëg liggéey atam lëmb tëkku ku la fëgg mënoo génnee cent mille francs ana liggéey ba lu muy jëriñ su ko defee yëpp ñàkk barke gi ak alal di tilim ji jafe-jafe yu nekk rek moo ñu yóbboo lu bëree bëree bëree bëree bëri ci ay natt kon fokk ñu delloowaat xel yi nàmmaat ko te jël ko delloo ko ci yàlla xam ne yàlla fàggul nañu lépp moom ci boppam buñ ko jéemee fàggu lim ñu fàggul yépp yombul waaye buñ ko fi bëggee bàyyi dem di fàggu ji lim ñu fàggul lim ñu fàggul yépp wan ñu gannaaw loolu mooy coono bi ñu dal ñu ñëpp nit teraangaam yegg na ci moom la yàlla samp wax malaaka ne ko kaay nga su jóotal nit samp na Adama def ko muy xibla mu woo malaaka yeeg seen bëri yépp ne usjudoo li Adama ñoom ñëpp ñu root sujjóotal ko ci màggaay ga ba mu des iblis mun istisnaa mun naa la ko iblis ak na nekk gëm nekk jinne li ci aju nit la yàlla teral jël turu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi muy móolab nit nit koo gis am na bopp am biir am ndiggaami tànk boo jëlee muhammad miim nga mooy bopp ba rek xaadam deelu nga mooy biir ba gëreem miim nga mooy ndigg la tànk ya mooy deel ga loolu waral maam xalifa ñes ne lu nit bon bon nekk ak yéeféer wedd yàlla bokkaale ko sa jëmmi nit ki du dem safara soo lëgee soo waree dem safara sa roxo gi la ñuy jëm monte ko ki jëmm gi doo jëmmi nit di ko lakk nga di ko yëg mu koy yëg waaye du jëmmi doomu aadama ja ndax doomu aadama bu ko yàlla lakkee rek lakk na turu muhammad moo tax mu ne wa sa sawara a suratana wa laysa yuhraqul mustafa al ghali loolu mang ca Euh, naylul maraam bi maam xalifa ngis liggéey ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir màggaay ga kon yàlla desel tuñu dara jël na suñ jëmm yi mool ko muy ci turu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jël suñ jëmm yi li ñuy xeebu xeebu ci suñuy maam aadama mu joxoñ malaaka ne ko ñëw leen ngeen su jootal nit te musul wax ne nit kay nga su jootal aat kay nga su jootal malaaka kon yooyu yëpp ay teraanga yoo xam ne dafa limu yàlla defal ko nit te nit mënul koo fay maanaam yàlla nga gis tamit nit moomu moo wax naa la ne moom kenn doom nga tax yàlla bind àdduna bi bu taxutoon nit àdduna bi ne moo tax da koo nekkal ba pare door a nekkal nit ci àjjuma ci la yàlla mujj a bind ci la ci diggante tàkkusaan ak timis ji kon day tekki ne yàlla bind bis bi ci mujj mooy bisu àjjuma lim nekk bis bi mujj ci àdduna bi yàlla mujj koo bind moo tax tamit mooy nekk bis bi àdduna bi tukki moom lañ mujjee woon moo tamit ci lay ci la ci moom la ñuy feeyee bu ñu commencé dimanche altine talaata àllarba alxames àjjuma lépp jeex ba nit ñëw nit a mujj moo tax tamit nit a mujj ci kaw suuf nit a fi mujj a bàyyeekoo ci tukkal àdduna àjjuma moo mujj àjjuma tamit mooy mujj ci àdduna bi ci diggante tàkkusaan ak timis ci la bindoon nit ki mujj diggante tàkkusaan ak timis tamit ci lay leem àdduna bi ci lay tukki moo tax Cheikh na Tijaani bokk ca góori yàlla ya yàlla yëral waa heure booba mu sant taalibi mi ngi def hadratul jumaa bu àdduna bi tukki fekk leen ci laa ilaha illallah mu giseen làmme ngi texe dem jana loolu rek mooy siroo hadratul jumaa moo tax eh, fekkee ba farata la di ko fekkee baax na lool donte ne nag euh, bu la faatee yiwu rëy faat na la waaye nag doo ko fay loolu mooy li gën a siiw donte lenn tamit ci xaaj ci tariqa bi wax nañ ne bu la faatee nga li ci gën a siiw moom bu la fàttee doo ko fay ndax ñaari xaaj la dafa am ci tarixa bi ñi def xadaratul jumaa ci lim ñi jëm lim mille six cent wala jël mille mille cent mille deux cent mille trois cent nga xam ne buy mbooloo buy kenn yépp dañuy lim ñooñu dañoo gëm ne bu la fàttee kon danga koy fay foog nga matal lim ba kon maanaam foog nga ma maanaam wali wali tukki mu wali wali tukki mi lu na iddata wali tukkabiru la ala ma hadakum la su fi am ci ñoo xam ne dañ ne bu yow kenn limal waaye bul passé mille six cent waaye bu mu gën a néew mille bu la neexee def mille mille cent mille deux cent waaye bu mu passé mille six cent buy mbooloo amul lim nekk leen ci rek ba ba jant bi so waaye teel leen a commencé ba desee waxtoo genn wàll lu mu néew néew ngeen commencé nekk ca ba jant bi so boo ko fàtte woon tamit nag yéex a commencé rek jant bi so baax na sukk yooyu ñu mos naa fàtte xadaratul ñu ne tey la ajuma ji ñu ne kon defal leen jéew bi ñu defal ne laa ilaha illallah benn yoon ngeen bosu mu ne doy na ñi gëm ne kon buy mbooloo amul lim jant bu so rek mooy mooy dayo ba kon duñ ko fay ñu jàpp ne nag buy kenn nag buy mbooloo dañuy lim ñoo nga ne ñoom dañ ne bu paasee da nga koy fay ixtilaaf bi foofu rek la nekk kon nit la yàlla teral ba bis biñ ko bind moom mu mujj fi ñi mujjee bis biñ ko bind bis booba mooy mujj ci àdduna bi di àjjuma bis booba tamit maanaam nit a fiy mujj tukki àdduna bi jeex raaf waxtu wa diggante tàkkusaan ak timis nit moomu tamit boo ko seetee teral ji ko yàlla teral moom ci boppam rek àdduna la lépp luy yi def moom kenn nit ki man na ko àdduna bi li man léeg-léeg ñu dugg ci guddi dem ba ci kanam dugg ci bëccëg léeg-léeg mu tàng léeg-léeg mu sedd léeg-léeg mu xiin léeg-léeg mu taw yooyu yëpp kenn nit ki mi ngi koy def nit ku mun di doon bu la wanee gannaaw gi dem guddi la ruuxul bayaan loolu la wax bu la wanee bëccëg maanaam kanam di ñëw bëccëg la moom ci boppam soo ko waxee lu sedd xolam ba tax xol ba xarxaram ba yànji xol ba sedd ba yaram wa yëg ko dugg na ci sedd soo ko waxee lu tàng xolam ba xarxaram ba soppeeku boole ko xonq su boobaa boole ko ñuul xonq xiin na su kàddu ya gënee naqari nag ba mu mujj tabaarakallaahu di eh, di sotti eh, ronkañ ya kon booba naan taw na bu ca boolee nag ronkañ yu sotteeku ak di émétee ko yooya mi ngi boole dënn taw nga dégg dënn ba la muy fuur rek la ca xaju kon moom àdduna lan doon def moom kenn moom kenn nit ki moom kenn yàlla dagale ko ci moom moo tax